Euh, euh, nit ki bëgg na ceeb mais su fekkee ceeb bi bu ko lekkee biiram daw day bàyyi ceeb dem feneen kon Kaolack mën na nekk am am am am am am euh, lu baax loo xam ne yàlla moo ñu ko baaxal ak ci jaarale ko ci loxol baay. mais léegi nag dañu war liggéey léegi li ngay wax ci inondation ci kii bi. mbedd yu taay loolu on accepte y a pas problème. kooku man lu am dañu doon accepté. waaw mais à l'approche du gàmmu nga wax nga ko fu ne la doomu aadama yi war a ñëw noo xaaral ma ñëw dama ne la on l'accepte du tey la du du l'approche du gàmm la am du toujours. te du Medina bàyyi rek Kaolack soo xoolee fépp la ñuy gàmmu. Mhm. waa kër Medina bàyyi tamit suñ paree fépp la ñuy dëkk. Mhm. démb yaakaar naa démb ci CND bi nekk ba minuit ci guddi man wax naa ministre bi ne ko suñ jëlee effort yi maire yi am. ak effort yi SONAGED am ñu cumuler effort yi mhm. ak AGEROUTE mën nañ def liggéey bi xam nga léeg-léeg l' administration lu ñuy bloqué mhm. mooy ku ne da ngay jaar sa yoonu bopp léeg-léeg ah maire ngi jaar fii pour bëgg buñ paree ñu ne maire def lii mhm. AGEROUTE jaar fii pour bëgg ñu ne AGEROUTE def lii euh, euh, kii UCG jaar fii pour jaar fii leen nag loolu administration euh, bi bu mag moo ko mën a régler woo ñëpp teg programme ñu bokk liggéey pour que régler loolu affaire boobu jafewut a régler et je pense que tey am na lu ñu ci loo xam ni commencé nañ ko loolu am na quelques camions yu commencé def mais je pense que dana réglé loolu daal am naa ci mais ci gàmmu Medina euh, wax nga ko problème mu yoon moom la te Kaolack am léegi mbaa du indi jafe ci circulation ñëpp xam nañ ne Kaolack non seulement wax nga ko Medina day gàmmu euh, Ndorong dañuy gàmmu Fass kaw kawoon dañuy gàmmu bëri na barab yoo xamante ne dañ fay gàmmu nan ngeen di def ba xàll circulation bi de sorte que nit ñi duñu bloqué loolu nag autorité euh, sécurité routière ñoo ko yor gendarmerie ak ñoom ñëpp ña nga woon ba mhm. li ma la mën a constater mais mairie Dakar am na des volontaires de la circulation mairie Kaolack du loolu du du volontaire c'est-à-dire du ay fu nit war a jaaree mooy mbedd yi mhm. moo yaatuwul mbedd yi moo baaxul il faut l'accepter il faut diir loolu wax nañ ko démb kawlax enclavé wul Kaolack bu ñu ko defaroon contournement yi bari na ci biir Kaolack y a plein de contournement su doon tey ñii ñëw Medina bàyyi mhm. ñi ñëw gàmmu si ñooy pro loolu du problème xam lan mooy problème dañuy transiter Kaolack di gàmmu ji mooy mhm. jàppal ku jógee Ziguinchor di gàmmu ji teewoon fu muy jaar dégg nga xëy na léegi am na Kaffrine mën naa jaar ne mais dangay jàpp li jëm yépp non Kaffrine mais waa Gambie sax. ah la ñuy jaar bi ñuy jógee. Gambie ñoom ñëpp Gambie ak ñuy jógee Soudan ñuy jógee ñëpp non xam nga dama ne la kii ñëw Kaolack. mais nag ci biir dëkk bi maanaam bu ñëwee ba gaare. ci biir dëkk bi nag monsieur le maire eh, xam nga xam nga eh, Kaolack nag gàmmu international la. Mm. yi dañuy jóge fu nekk ci àdduna bi. Mm-hmm. loolu aussi il ñu tenir ko en compte. non loolu loolu même même au delà. ñi ñi jaar Kaolack di transiter di dem. Kaolack aujourd'hui c'est devenu benn. Euh, mm-hmm. euh, commune wala benn région bu nga xam ne gàmmu bi bu jege see gàmmu international ku ne xam na ne nu muy mel. loolu laa la wax dama ne la. Ah, loolu dama ne la xam nga maire yi. Mm-hmm. day porter mooy mairie représente les Kaolackois. Oui. pour solutionner seen affaire. Mm. mais li man mooy lii mënu ko def mu ne lii mënuma ko. Hmm. au moins def ko. même bu nekkee sama compétence. loolu mooy mairie ndax. mais Maroc dafa am problème. Hmm. mais lu tax Sénégal jóg dem di ko wàllu ji. affaire bi daf ko dépassé. kon Amérique sax day am problème yoo xam da koy dépassé kon nit da ngay nangu. Mhm. daa ne situation nga ne lii daf ma dépassé. Mhm. c'est-à-dire situation organisée circulation Kaolack pour période gàmm dépasse la mairie. Mhm. et ce n'est pas dans ses compétences loolu loo loolu laa lay expliquer. mais dama ne la bu doon tey li tax ñu war a gën a defar Kaolack. mooy dama ne la bu doon waa Kaolack rekk sax ñay gàmmu ci Kaolack waa Kaolack. mais mais est-ce que est-ce que dafa war a nekk rek ci période période gàmm bi qu'il faut le soutien est-ce que li war a am ci collectivité territoriale bi ak ci état mooy le pouvoir central am na ci ci sa diggante ak li nga xam ne mooy autorité yi soutien bi nga soxla pour Kaolack ndax yaa ngi koy am. mais dafa teel parce que mënoo wax dafa teel. Hmm. parce que. mais depuis nee ma nee ma nee ma laaj ma wax naa la ko. laaj ma ne ma ndax 2000 ba léegi soutien bi. état bi war a def ci Kaolack. c'est ma ne la déedéet waaw loolu c'est la même chose que man kooku du man. surtout bi nga yoree jaar na fi. xam nga bi nga yoree yow. bi nga yoree di diriger. waaw yor mairie war nga mm. mën a xam bu baax a baax ndax. li ngay xaar ci état en terme de soutien yaa ngi wax sànq infrastructure y a les inondations peut-être amoon na problème bi nga xam ne mooy salte bi nga def ci sa liggéey mais est-ce que aujourd'hui am nga ndimbal bu mat sëkk boo xam ne jóge na ci état. état bi nga ko yoree ak bien am na côté. xam nga doomu aadama dangay wax li am. état xam nga tey man bu ma nekkee candidat. Mm. yeneen candidat yi boo leen fi tegee fii li ñuy wax ne état def fi dara déedéet. Mm. SONAGED UCG bu defee dara mais kan la. Mm. état la kooku dama koy nangu. amul benn problème dégg nga Sénélec bien que am na euh, protocole bu mu doon am ak ñoom mooy ñu am objectif liggéey xam nga kee dañoo toog am protocole lii ngay def lii laay def lii def mu leer naaj kee. protocole la ñuy wut mais gis naa ne mi ngi liggéey Medina bàyyi mu ngi liggéey yeneen endroit yi mu ngi liggéey mais dajul mais li ñu bëggoon mooy ñu toog mu leer. ci hmm. mairie bi ak ñun ñu leer seen lekk ne man danaa leen defal lii yéen ngeen def. parce que monsieur le monsieur souvent li ngay wax moom moo dul leer en quelque sorte soit état dañuy wax ne jàppale na la. am na ay résultats yu probants wala loolu amul. mais pas côté bi wala côté gee pour peut-être bañ frustré état wala bañ a wane ne am na yéen ci seen diggante benn ñàkk juboo en mais xam nga Fatou l'objectivité mooy lan. Hmm. mooy boo nee nit baax na nga expliquer lu tax mu baax. Hmm. boo nee bon na nga ne expliquer lu tax mu bon. Hmm. man dégg li ma ñaar moo am jàppale pour des résultat pour Kaolack wala bañ a jàppale pour des résultats. déggoo li mu la wax. am na lu mu fa def su ma ko déggee waaye bariwul dee lu jëm ci wàllu yoon. <laughs> Hmm. xanaa wax day leer. foofu leer na. waaw su dee lu jëm ci wàllu yoon. amul amul. mais bu dee lu jëm ci wàllu set. am na. loolu rek laa la mën a wax. mais ci beneen beneen léegi nag yow yaay analyser li ma la wax. <laughs> très bien <laughs> yow yaa koy analyser ne lépp baax na wala lépp bon. loolu rek laa la mën a wax lu jëm ah. ci xam nga Kaolack amoon na aérodrome bu ah. Kanda bi. Ah. te gàmmu gi am na ñoo xam ne ñu jógee ca bitim réew mais dañuy obligé jaar aéroport Diass mm. wàcc doog a jël yoon bi mm. euh, yow en tant que maire yan jéego nga dox même bu laajee jumelage parce que Saint-Louis ñoom dem nañ ba dekkalaat seen aérodrome ngir avion di fa ñëw mm-hmm. loo dox ci jéego ba avion war a mun a teer mm-hmm. kaw lak rawatina non bul jaawale xam nga saint a été toujours un aéroport international waaw mais dañ ko yeesalaat xëy na trafic bi dama dafa am dafa am réglementation international Saint-Louis ay été toujours aéroport international. Hmm. Cap Skirring dafa mas a nekk aéroport international. Euh, Ziguinchor dafa nekk. Kaolack musul nekk aéroport international. bul imaginer mukk Kaolack aujourd'hui mën nañ ko defaraat ba mu nekk aéroport international kooku liggéey bu mag la te gis nga ne dañ ko dëkkee ba sës ko. état bi mi ngi nekk ci benn programme pour defaraat ko mais aéroport militaire la mais mi ngi xalaat pour defaraat beneen aéroport international mais pour ñun pour ñun suñ gis-gis de vision xam nga nit doo fi nekk am naa am na su état bi pare woon autoroute bi mais je pense que wàcc aéroport Dakar dem Kaolack moo gën a yomb dikk Dakar mhm. on n'a pas besoin d'un deuxième aéroport très bien bu leer war na mën a nekk parce que. waaw mais d' accord xam nga. attraction bi muy am ci période du gàmmu. laa neex nga def xoolal entre Ziguinchor. Mm. et Cap Skirring 70 kilomètres la parce que président Wade ñëw na teer fa ak avion ba muy euh, inauguré Sodefitex ba. waaw mais xam nga aéroport aérodrome. Mm-hmm. mën nañ fa teer ak avion. bu mag mu ko attanee ak avion privé mm-hmm. aéroport classement international mm-hmm. avion mën a naawee passager départ Nigéria ñëw wàcc ko kooku dafa am ay réglementation non non dama bëggoon a wax aéroport boo xam ne ku ñëw ba Dakar bala Diass war nga mën a départ ci avion comme ni ñuy defee noonu non man laa la wax man Serigne bu yow jaral la ko man Serigne bu même bu ma yoroon Sénégal mm-hmm. xam nga lu may def fexe ba ko wàcc jas mën a jël train une heure de temps yaa ngi kaw la. <laughs> waaw laa gën a loolu laa gën a wut ci leen defal aéroport. ci wàllu wut Sénégal boobu. ci wàllu route tamit. Mhm. Euh, autoroute autoroute bi bu paree mais boo defee une heure de temps dem kaw la. waaw. Mhm. une heure de temps tu n'as pas besoin d'aéroport léegi nag aérodrome. kii peut le plus moom. non attends mais xam nga l'argent public tamit daf ko war a yaxanal. Mhm. doo nekk naan. doo nekk naan lii la. c'est-à-dire ah, aérodrome daal ñu am aéroport boo xam ne ah. boo ma nee tey xam nga nit day am priorité. Mm-hmm. Mm-hmm. aéroport yëfu ko borom barke la. Mm-hmm. dégg nga non da nga may wax priorité. Ah, <laughs> xam nga xam nga wax day leer. xam nga nit dafa am priorité soo ma uh-huh. li ëpp solo loo xam ne buñ ko defaree mu mën a indi ay liggéeykat. Uh-huh. nee ma port ba. nee ma train bi. Mhm. non non loolu non non loolu loolu loolu du suñ compétence mënuñ ko sax mënuñ ko. suñ doon dajale li ñu am lépp fekk 30 mais ci sa engagement euh, euh, ministre nii dara au moins li Kaolack la. xam nga ñun li ñuy xam xam nga ñun li ñuy yare. absolument alxuraan. Mm-hmm. mooy na ngay wax li ngay def. Mm-hmm. loo man nga def loo mënul nga ni mënuma. loolu de la askan bi soxla ah, man de loolu laa bëgg. dëppoowul ak système bi nag système système non non système bi amul problème. Ah, système bi loolu lañ système bi système bi système bi xam dañ lay ñëw président dig la dig la dig la dig la dig la ba nga. neel nit ñi ah, neel nit ñi